salaamaaleykum mbokk internet ci Senego TV te ñu am mbégte dalal benn euh, leader bi nga xam ne duñ ko kenn du ko présenté ci milieu politique bi ndax du ci gan di monsieur Barham Thiam monsieur Barham Thiam nekk président parti parti conservateur du Sénégal monsieur ci am ñoo ngi lay nuyu di la dalal fii ci Senego. waaw jërëjëf euh, Sarr. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi. Mm-hmm. di euh, nuyu mhm. seen téléspectateurs yëpp mhm. di nuyu seen équipe bi di leen jaajëfal ci liggéey bu rafet bi ngeen def ci Sénégal mhm. ak ci je pense que léegi waxuma la Sénégal sax waaye euh, ñu nekk ci monde bi yëpp ñuy gis Sénégal liggéey bu rafet bi nga xam ne moom ngeen di def communiquer communiquer vrai communiqué juste donc loolu ñu ngi leen ci remercié di leen encourager bu baax a baax li leen gërëm ci li ngeen ñu dalal tey ñu waxtaan ci réew mi ak njëriñu réew mi. Euh, aussi monsieur Thiam mun nañu fàttali ne aussi que maître nga en management public aussi spécialiste nga gestion de crise aussi am na yeneen ab yenn facettes yi nga xam ne mën nga koo baaxee yenn internet yu lay seetaan. waaw waaw pour ñu ñu xamul euh, man maay mon nom est Barham Thiam donc euh, président du parti conservateur Sur le plan académique, je suis diplômé en droit, maître en management public, comme vous avez dit, euh, en sciences politiques aussi, diplômé en gestion de projet, diplômé en médiation internationale de l'Université des Nations Unies, entre autres. Donc, euh, et plusieurs autres diplômes et qualifications certificats de l'école de la fonction publique du Canada. donc voilà euh, sur le plan professionnel peut-être euh, dire que yàlla def na ñu liggéey tuuti ci gouvernement parce que loolu la ñu gën a xam pour avoir été euh, euh planificateur pendant plusieurs années sept ans au gouvernement du Canada et ensuite business analyst au gouvernement du Canada également responsable qualité contrôle au gouvernement du Canada et responsable aussi dans le projet de exchange ci Canada donc euh, voilà donc euh, yàlla def na ñu liggéey tuuti ci gouvernement donc euh, xam ci loo xam ne war na mën a jëriñ Sénégal donc loolu mooy ki ñu doon ci en terme de présentation et peut-être en termes d'implication aussi yàgg nañu yëngatu ndax politique comme ni nga ko waxee du du ñu ci gan duñu ci gan duñu ci xale ndax nit bu demee ba làq ñeent fukki at ak nangam loolu la président yu bëri yu nekk ci monde bi am euh, te yàgg impliqué wu sur le plan syndical ku nekk xam na ni ñun fu ñu dem dañu mos a bëgg mbir yi soppeeku ci soppeeku bu baax euh, fu ñu dem muy lycée CM naa te le président du foyer du CM Mignane Sarr de Kaolack maa ngi leen di nuyu sama collègue yi président du foyer du lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack mhm. si ñu ngi leen di nuyu responsable euh, des étudiants de la faculté de droit à l'assemblée de fac et à l'assemblée de l'université et membre de l'union des étudiants de Dakar donc voilà implication moom def nañ ko lu bëri ba yàlla def ñu jëlee ñu fii mhm. euh, par euh, une situation boo xam ne ñu bëri peut-être que xamoon nañ ko Euh, suspendre ñu ñu dem jàngi yàlla def ñu dem jàngi Canada nekk université de Sherbrooke jàng fa bu am fa ay diplôme donc euh, master en management public ce qu'on appelle MPA master of public administration euh, ak master of political science mm. DSS en sciences politiques et voilà impliqué wu foofu aussi parce que c'est la continuité donc jiite les étudiants de l'université de Sherbrooke bokk fédération des étudiants du Québec donc bokk membre table de concertation yu ci bëri ñun ñoo ko doon défendre mm-hmm. même léegi réduction yi booy am ci jàng mi étudiants internationaux yi Canada ñun ñoo ko doon défendre depuis 2008 xeex nañ dem nañ as assemblée commission parlementaire sur l'autonomie des universités Euh, la loi sur l'autonomie des universités ñun ñoo demoon jàkkaarloog ministre Courchène mm-hmm. donc pour défendre loolu euh, aussi euh, demoon francophonie sommet de la francophonie 2008 jàkkaarloog chef d'état yi juste rek pour doon xeex pour que xale yi nga xam ne ñu ngi ñëw mm-hmm. ñoom ñu mun a am possibilité jàng dans des universités comme ça et puis ñu démocratiser l'enseignement donc vraiment donc en parallèlement aussi ñu nekk politique donc euh, AFP ci ñu ko créé ci lañ bokk euh, donc bi ñuy génn AFP boobu président Moustapha Niass génnagul bi ñuy génn PS ñun comme jeune socialiste boobu président Moustapha Niass génnagul sax euh, PS donc ñun ñoo ko poussé donc jàpp ci ñu travaille ensemble ma doon responsable des étudiants fii ensuite ma dem ba diriger l'Amérique du Nord AFP donc bon xam nga am nañ tuuti background boo xam ne ça peut nous permettre vraiment de aller de l'avant parce que quand on a compris à un moment donné que la voie qu'on avait tracée donc ñu ngi koy dévier et dévier gravement hein euh, donc on s'est dit que c'est le moment de de changer de cap vraiment ñu def leneen c'est dou la création du parti conservateur avec des amis et puis euh, voilà si loolu la ñuy xuus gis nañ ne politique bi doo leen ci gan euh, jaar nga AFP wax nga ko fu bëri am nga fi nga jaar mais lu tax après at yooyu yi nga xam ne def nga ko ci biir si euh, biir mu nañ ne bitim réew ba ngeen ñëwaat fii Sénégal lan moo sabab lu ngeen jël créer seen parti bi ñuy woowee parti conservateur du Sénégal. Euh, waaw je pense que li ko sabab yomb na xam parce que tur bi rek déjà wane na ni dafa am beneen orientation bu ñu war a am. Euh, parce que li ñu gis mooy ñun Afrique peut-être que loolu dafa lié ak suñu histoire euh, lu ci gën a bëri li ñu moom duñ ko farataal te dañ koy xep te loolu moo ëpp importance lépp euh, valeur yi ñu am ñun ak principe yi ñu am ak doxalin bi nga xam ne moom lañu am sans compter les ressources buñ ci basé woo rek war nañu mën a sori war nañu mën a développer war nañu romb fii ñu nekk au lieu que ñuy xool li keneen moom rek ñu copier ko mhm. donc loolu mooy fondement conservatisme mhm. c'est vrai que courant bu bees la nag Afrique mhm. euh, ñu ci bëri ñu ngi théoriser lu mel noonu mais tudduñ noonu peut-être euh, peut-être que gis ki yi aussi bokk dañ ko ak ñu bëri alors bi ñu xalaatee réfléchir réfléchir ñu ni léegi je pense que euh, euh, courant boobu noonu lu ñu war a taxawal la dooleel ko ak li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci xam-xam ak modèle yi nga xam ne gis nañ ne mu ngi dox feneen pour que ñu samp loolu Sénégal mun a defar Sénégal mun a jëmmal Sénégal mooy li nga xam ne ñun moom la ñuy wax ci loolu la ñuy basé pour restaurer la République parce que ku nekk xam na ne république bi dafa xaw a nësax euh, Sénégal euh, vous m'excusez du terme ya il y a trop de désordre désordre au sommet ya y a trop d'insécurité de l'insécurité communautaire à l'insécurité militaire ñu ñëpp gis nañ ko alors loolu pour ñu restaurer ko dafa am liggéey bu mag boo xam ne moom lañ ci war a def liggéey de conscientisation nationale nous c'est ce que l'on appelle la révolution tranquille qu'on est en train d'implanter dans ce pays-là une révolution totalement tranquille pour que les gens puissent comprendre se rendre compte de leur situation actuelle xam seen réew mi fan la toll pour que ñoom ñu xam lan moo ci seen responsabilité pour que ensemble ñu xam yan rôle lañ ci war a jouer clarification des rôles et des responsabilités quand on restaure tout ça ku nekk xam président xam luy wàllam ministre bi xam luy wàllam député bi xam luy wàllam ku ci nekk fi nga nekk même situation bu situation bu ndaw bi nekk di jaay caaf ci koñ bi xam lan mooy wàllam loolu c'est fondamental bu ñu xamee ku ci nekk clarifier les rôles et les responsabilités te ñu bañ ko bind ci ay këyit rek ñuy wax xam nga Sénégal li ñuy tardeel mooy je m'excuse mais gars yi lu boo wax ñu ne la nous avons les meilleurs textes nous avons les meilleurs plans mais je suis désolé man y de meilleur texte y a y a beaucoup de vide y les gens font des des des des pratiques yoo xam ne amul benn fondement par exemple euh, benn bifurqué tuuti rek Covid bi. Mm-hmm. mais le comité ko avait institué là. Mm-hmm. mais clarifier wu ñu woon effectivement kes ce mm-hmm. qu'il faut acheter sur ça et qui doit avoir quoi mais bu ñu demee ba ne am na benn peut-être que dinañ ci ñëw plus en profondeur bu ñu demee ba ne am na des fonds yoo xam ne c'était pas des dépenses qui n'étaient pas liées au Covid mais parce que c'était pas clair. s'il y avait des textes très clairs des directives et puis ñu identifier exactement je l'ai dit la dernière fois mais ça existe dans tous les pays du monde au gouvernement du Canada il y avait ça fonds Covid on a aidé les gens directement au lieu de indirectement le social qu'on est en train de dire au Sénégal là mais c'est c'est c'est de la corruption pure et dure et puis ceux qui font du social fan la ñuy jëlee xaalis boobu ils te volent ton argent ils viennent te don mille francs ils viennent te mille francs après nga xalaat ne kontaan nga mais c'est pas ça c'est l'argent du peuple c'est l'argent du peuple alors quand on restaure la République c'est là où on va avoir vraiment les véritables principes qui fondent la République l'égalité l'équité la transparence c'est très important égalité équité transparence c'est fondamental on le dit mais on le sent pas les gens ne savent pas l'équité les gens ne savent pas la redistribution des richesses la redistribution direct je dis pas indirecte uh-huh. on te prend SAR tu es ministre on te permet tu voles des millions nga dem seen dëkk mais tu construis même une messe une mosquée mais uh-huh. imam bi sax dafa la waroon wax mais fan nga jëlee xaalis bi Ablaye Wade bi mu fi nekkee combien de millions il donnait uh-huh. léegi est-ce qu'il un million est-ce que avant muy doon président il donnait un des millions donc je pense que c'est ce qu'il faut revoir et puis aussi je trouve mal ku feebar ne président ku feebar ne Marème fay Sall mais dans dans quel pays sommes-nous mais y a des y a des fonds institués uh -huh. qui règlent ces questions-là et puis chaque citoyen avait la possibilité de contacter l'institution dédiée à ça parce que loolu mooy transparent nga def ko en tout sutura liñ la war a jox ñu jox la ko chaque année buñ classifié buñ classé nit ñi ñu xam ne kii lii moo ko war fa réew mi lii la am lii lañ teg pour jox ko nit ñi kii Sarr lii lañ ko war a jox Barham lii lañ ko war a jox Moustapha lii lañ ko war a jox Macky Sall lii la war a moom mais ban réew ñooy am lool mais réew yi gën a am doole états uni est-ce que da ngeen gis président bi def def noonu est-ce que da gis loolu Canada ñuy def lool nañu xool ci ñi nga xam ne seen démocratie romb na te léegi outils yooyu disponible na donc bu ñu restaurer maintenant l'espoir xam nga loolu bu amee ku nekk danga am espoir booy dem di nga xam ne man lii war naa ko am ma am ko d'accord lii mooy sama yelleef soxlawul may xam saar soxlawul may xam tel ma dem bu ma xëyee am naa fu ma war a dem du ma stressé parce que l'information est disponible maintenant nag bu ñu restaurer la république redonner de l'espoir maintenant on transforme le pays uh-huh. on n'est plus à l'émergence hein l'émergence c'est une étape uh-huh. du développement parce que ñun dañ koy dépasser on transforme le pays pour que chacun s'y retrouve sur tous les plans sur tous les plans mais nous notre modèle économique ne sera pas un modèle basé sur l'assistanat total l'assistanat à tout bout de champ même quand on entend le président de la République on va équiper les paysans on va non non non c'est pas comme ça qu'on doit faire on doit les autonomiser on va construire on va donner des étudiants de tickets on va vous loger à moindre coût mais on vous apprend que la dépendance je connais ça parce que nekkoon naa fii xeex fi lu si gën a bëri mais xam naa ne li ñeneen di def moom la ñu war a def mooy xool kan moo yelloo bourse kan moo yelloo aide ku ci nekk lu mu yelloo cette discrimination positive la ñu def ko pour que ku ci nekk li nga war a am nga am ko on peut pas comparer un fils de Amadou Ba avec un fils de Lamine kebe ki est à Kër Madiabel ou bien un fils de Thiam ki est de l'autre côté koo xam ne vraiment même buy jàng dafay am difficulté pour am lu mu jëndee ressources yi mu jàngee cette personne la mënuñ ko comparer ak keneen koo xam ne mu ngi ci beneen domaine je pense que c'est cette classification la de la société qu'il faut faire pour savoir nan la ñuy dimbalee ku nekk ci li ko war ak ci li mu soxla. Mm-hmm. gis naa ne léegi nag après bu ñu transformer bu ñu restaurer redonner le espoir transformer ce pays vraiment on aura un excellent pays où il de vivre du du soxla sax même boo amul président dëkk bi dox parce que règle dafay am. mais Afrique ngay gis euh, Sénégal ngay gis un ministre boo xam ne bureau wala un DG sax waxuma ministre un DG boo demee gouvernement du Canada un DG xalaatul am genn wàllu loolu bureau bu ndaw ngay am ñaari table ñaari chaise moo fay nekk benn table parce que outil pour nga liggéey lañ lay lay jox mais joxuñ la outil pour nga def bambula boo duggee ay salon fii ay télévision fii mais télévision kuy liggéey looy doy télévision boo duggee mais bureau yi c'est c'est c'est c'est extraordinaire les gens jouent avec l'argent du contribuable ça doit pas se nit ñi nañ leen jox minimum ñu liggéey alors ñu jël xaalis boobu dugal ko feneen mais comment tu peux donner comment tu peux donner je finis par ça comment tu peux donner boo xam ne day jël quatre-vingts millions à un DG alors que moom fi mu dëkk ñooñu seen hôpital ba amul sax scanner wala amul sax médecin bu baax mais c'est que on doit dañu war a interroger wu ñun ci suñu réaliser suñu réalité nañu xalaat réew mi nan lañ koy doxalee tant que defuñ loolu muy xale muy mag dina doy waar te si ça continue ça avec ce désordre la avec mal gouvernance avec ces détournements euh, ça peut être très dur pour nous gis nañ ne yaa ngi souligner beaucoup de vide beaucoup de vide mu nekk moo bi nga xam ne ci biir semaine bi lu muy ñëw lu muy ñëw bëri na trop par rapport ak euh, discours bi nga xam ne suñu njiitu réew def na ko discours à la nation bi yow ban jàngat nga amee nga amee ci ja si discours boobu noonu. waaw waaw man format bi sax déjà vraiment si c'est c'est un, c'est un peu classique quoi c'est un peu chaque chaque 31 décembre nga wax nit ñi. loolu profit d'intention la rek c'est vraiment des veu je veux faire ça peut-être que comme li nit ñi doon wax euh, comme certains l'ont dit ñu xaar bilan bilan par exemple def nañ nangam def na ci biir am na bilan waaw non bilan bi pour man mhm. euh, ci la ci lañ gënoon a war a mun a appesantir mhm. euh, par exemple réew mi toll nañ foo xam ne mhm. suñu économie bi nii la doon doxee léegi petrole mu ngi dugg gaz mu ngi dugg léegi nii lañ war a soppeekoo pour que ñi nga xam ne mu ngi ñëw ñu mën ko dékku xool nan lañ koy defee nu mu gën a rafetee pour que Sénégal yëpp gis ci seen bopp cest di dire mënuñoo ñëw ci point yu yëpp euh, mais euh, par exemple sur le plan de l'éducation wax nañ ne dinañ construire ay infrastructures yu bees mm-hmm. ay équipement de certains lycées même lycée Valdiodio Ndiaye je pense dégg naa ko. Mhm. si ma mémoire est bonne. dina am 22 yu bees yu ñu war a tabax. 22 lycées effectivement si c' est bon. Mhm. c' bon mhm. par exemple institut universitaire yi nga xam ne ñu ngi ko def ñu ngi ko war a def. je pense que euh, pré classe préparatoire yooyu yëpp. c' est bon léegi bu ñu demee ci agriculture par exemple ñu ne baykat yi. dañ leen utal équipement. mais ni mu demee woon noonu lay demee waat c'est-à-dire mécanisme bi nga xam ne moom lay am pour que yooyu c'est bon c'est bon mais mécanisme bi nga xam ne moom la war a am pour que ki ko war a jot jot ko et pas politicien bi jot ko loolu mooy transparence bi ñu doon wax ba léegi nii ak clarification des rôles et des responsabilités des positions parce que loolu c'est c'est très important euh, bu ñu jëlee baykat yi ñu organiser leen pour que ñu mun a dem ci banque yi mhm. état mun na def benn certificat de garantie par exemple baykat bu nekk ñu ñëw xool yow lan nga yelloo mais moi j'ai été tout récemment au salom dem naa ci tool yi mhm. mais man nañ doon bayee ak suma maam ni mu doon bayee mhm. ba léegi moom la ñuy bayee changé wul léegi ñu ne dañu bëgg autosuffisance alimentaire ensuite dañu bëgg bay di dundee bay di jaay mais loolu mënuñ ko def ci condition yooyu noonu. mais dagguma la mais su ma juumul ci biir discours bi président souligné na que budget bi entre deux mille dix neuf ak mille vingt deux bi budget bi quarante millions ba quatre vingt millions presque doublé na sa ba ma gisee nga ne conditions yi ah. changé wul ba léegi. waaw mais xam nga bon loolu war nañu questionné woon suñu bopp bu doonee ne budget bi doublé na te conditions yi changé wul kon xaalis bi peut fi ñu koy dugal dugaluñ ko fa donc loolu mais. Hmm. par exemple au lieu mu doon loo xam ne dañ koy jëndee matériel. pour jox leen ko mais nañ jël xaalis boobu noonu quatre-vingts millions milliards yooyu noonu mhm. ou bien wëree ba budget bu mu toll mais ñu jox ko banque yi nga xam ne ñoo ko moom ñoo ko war a yor mhm. léegi banque yooyu baykat bi dañ koy dimbale mu defar projet am mhm. clôturer toolam renforcer sécurité am defar plan d'affaires bu baax ñu aider ko mu dem ci banque bi kooku jox ko xaalis bu bëggee ay tracteur mu jënd tracteur wala ñoom ñu organiser wu en coopérative jënd tracteur dinañ ko gën a toppatoo mais dinañ ko fay mais état bi tamit li muy dugal du doon xaalis boo xam ne da koy joxe nii rek du am benn contrôle parce que aussi xaalisu état buñ ko joxe dafa war am njeexital bu mucc ayib ci nu askan wi donc bu ñu jëlee loolu noonu ki nga xam ne moom am na ci nawet bu am doole mu am résultat yu baax mais kooku dina mun di fay banque bi ndànk ndànk ndànk di continuer di am nawet bu am doole ak production bu am doole boo xam ne condition am dina changer dina jógee ci un point A mu jëm ci un point Z c'est un peu ça qu'on est de dire parce que munuñ continuer rek ni mu doon demee ñu jox ko walla mu dem fenn euh, taxaw fa c'est bon mais mun nañ ko gën a améliorer dem par exemple Tamba. xool ne non dinaa leen defal temps dinaa leen defal lii dinaa leen defal xam nga projet euh, stratégie de développement bi c'est très simple munoon nañ ko def ci lu simple ci lu simple mun nañu jël localité bu nekk seen force seen faiblesse seen opportunité ak seen projet de développement léegi bu ñu jëlee yëpp 46 départements yi ñu intégré ko c'est ça naa a besoin pour un plan de développement national. mais pourtant loolu mu ngi am. donc mais loolu mu ngi am boo xoolee vu les les conseils de ministre décentralisé yu muy def par rapport ak région bu ci nekk bu demee ci département yi mu ngi def day am ay études am euh, yenn yenn yenn solution yi nga xam ne dañ koy jéem a proposer askan wi fa ne. waaw j'avoue que ni niñ koy doxalee bon mun nañ ko améliorer mun nañ ko améliorer parce que du dañuy bàyyi ba conseil des ministres décentralisé ñu def ko c'est en longueur de journée que ça doit se faire down the road chaque jour dañu war a def loolu xam nga moi di dit la dernière fois que même euh, suñu préfet yi ak ñeneen euh, waruñ fexe ñu doon ñoo xam ne dañuy doon des représentants de l'État là-bas seulement mais des acteurs de développement des analyses yoo xam ne dañuy xool situation bi analyser ko def ay rapport de développement mu avancé mm-hmm. parce que yooyu yëpp ñu ko defee dina permettre projet yi nga xam ne président daf koy annoncé ñu mun a xool nan lañ koy doxalee ak acteur bu ci nekk ku ci nekk lan nga ci war a def pour que mun a am jeexital ci askan wi donc loo rek moo ci am solo mais wax ci wax joo xam ne dafay doon wax ju rafet te mujj gi parce que xoolal conseil de ministres décentralisé raison bu ci nekk demoon nañ fa am na ay propositions yu ñu fa def mais boo xoolee di nga xam réellement que amutoon suivi wala amatoon étude bu bu sérieuse boo xam ne vraiment dina wane ne lii luñ mun a def la quelque chose de réaliste réalisable donc mesurable et atteignable donc c'est c'est très important parce que bu amul loolu rek dañuy éternel recommencement parce que loolu gisoon nañ fi Wade c'était un peu la même chose Macky c'est un même chose nous nous voulons que vraiment mu changer ñu am beneen manière boo xam ne moom la ñuy élaborer les politiques publiques beneen manière boo xam ne lañ koy exécuter beneen manière boo xam ne lay am suivi pour que mu am continuel improvement amélioration continue donc te loolu outils yi ñu fi ressources yi ñu ngi fi donc ressource yooyu que mu doon ñi fi nekk que mu doon ñi nekk feneen ñu indi leen jox leen ay responsabilité vraiment ñu dérouler plan bi nga xam ne euh, moom lañ moom lañ adossé au au plan Sénégal émergent u action yi nga xam ne moom la ñu war a réaliser pour que ñu mu mu yegg ci orientation yi orientation yi yegg ci stratégie yi pour que vraiment ñu atteindre cet objectif de qui est inscrit dans leur bible là le, plan Sénégal émergent ou, ou un Sénégal développé je pense que loolu mooy li nga xam ne loolu la ñu war a def mais aussi ñu gis ne temps yi avant bu ñu jógee ci discours bi gis nañ ne benn coow boo xam ne lëmbee na dëkk bi muy rapport Cour des comptes scandale sur scandale bu ñu jógee rapport de avant rapport de rapport cour des comptes ñu ngi woon ci OFNAC ba léegi nii ñu ngi ñaan dina am suite ñu si bëri naa dina du am suite en tant que yow leader politique yow na nga ko jàngatee ci rapport boobu noonu. waaw jàngat biñ ci am je pense que mooy jàngat bi ñu bëri am pourquoi parce que au-delà des faits le président l'a dit xam nga dafa am erreur yoo xam ne dafay topp nit moo tax communication ñun ñëpp. dañ ci war a def attention xam nga président bu waxee benn instant mu ne am na ci yoo xam ne moo ci teg coñcoom pour la stabilité nationale même bu doonee ne pour stabilité nationale la loolu dafay dafa am lu muy def ci bopp nit ñi bu doonee ne action yu mel noonu daf ko topp mooy rapport yu bëri di fi ñëw ñuy incriminer nit te gis nañ ne au lieu muy am sanction mais day am sax sanction positive c'est-à-dire moom day am sax promotion loolu bu doonee ne am na dafay tax nit ñi dootuñ la gëm xam nga euh, mooy valeur yi ñuy wax léegi rek xam nga nit boo dematee ba sax njaboot gëmatuñ la c'est très dangereux te man dama gis suñu président yi ñi leen di daaneel sax mooy ñi leen gën a jege parce que ñoom ci seen bopp dañuy dem ba duñu leen gëm waxuma laak citoyen lambda bi nekk ci feneen alors bu doonee ne teg nga sa conc ci loolu nga wax ko en bien au en mal mais nit ñi mun nañ ci gis en mal bu doonee ne action yooyu noonu dafay continuer mais bu ñu xoolee rapport de Cour bi loolu fonds Covid rek la voilà am na yeneen rapport yuy am toujours comme vous avez dit rapport OFNAC entre autres euh, pour man institution yooyu am na ci yeneen réew te am na ci loo xam ne ñu koy tuumaal ñii bu doonoon yeneen réew la yow da ngay démissionner c'est-à-dire doo xaar sax mu fekk la fa wala jomb nga def ko wala doo ko mun a def parce que ñaari mbir dafa am solo jomb naa def ko mooy yow doo ko def mais dinañuy fexe ba au-delà de jomb googu am na koo xam ne moom dina ko def mais dañuy fexe kooku bu mu ko def cest à bu ñu leeralee texte yi bu ñu leeralee texte yi def nañ comité de gestion de de de la Covid. Mm ministère nekk fi. ministère des finance nekk fi mais comme li ma wax au début nañu clarifier c'est-à-dire dans des textes commission boobu noonu commission stratégique la war a doon comité stratégique comité stratégique boobu dafay énumérer ne tel ministère lii mooy cëram parce que lu ci bëri dañ ko leeralul bu ñu waxee dañuy wax mbas mi daf ñu bett wax naa la ne réew yëpp la bett te réew yu ci bëri comme réew yi gën a am doole ñoom fàggu nañ seen bopp organiser wu nañ de sorte que qu'il n'y ait pas eu des scandales aussi de bas étage vraiment euh, veut veut pas c'est vraiment euh, une dilapidation des des des des de de l'argent du public même bu doonoon benn milliard la warul woon demee nii mille milliards bu ñu ko defee mun nañu wax ne ministère bi lii mooy cëram parce que dafay laaj liggéey nag c'est pas benn comité boo xam ne dañuy toog rek réunion après bind ay rapport teg ko fa non dafay am analyste yoo xam ne dañuy xarañ ci gestion publique ñu identifier ba jusqu'au jusqu'à l'aiguille bi gën a ndaw dañuy énumérer lan la ñu war a jënd ci xaalis bi xam nga bon kenn mënul jënd leneen ensuite ak activité bu ñu wax ne ou bien article bu ñu wax ne dañ ko war a mën a jënd mais dañuy wax euh, fourchette de prix bi donc bu ñu ne fourchette bi de tel à mu nuñ ko dépasser donc mu am beneen commission boo xam ne même bu dépense ñëwee lu mu urgent urgent am na dérogation du code des marchés mais dérogation boobu jarul ko woon parce que code de marchés prévoit na des situations d'urgence léegi bu ñu demee ba nga xam ne nee nañ contrôle bi mooy problème mais il faut recruter du monde il faut chercher des ressources nous on était là d'autres étaient mais am nañ yeneen modèle de gestion mais ñooñu nañ leen woo même étudiants yi sax boo leen woo woon nga def texte tex texte bu bu clair xam nga audite audit dañuy wax rek mais mooy contrôle de conformité la loolu mooy audite de moo bi dañ ko rëyal noonu rek mais contrôle de conformité la léegi est-ce que nii ñu prévoir noonu lañ mun a defee est-ce que defee nga ko noonu donc bu jëloon étudiants yii nekk premier deuxième année mais ñu former leen mun nañu aider ce comité la vraiment à lii duñ ko mun a gis mais am na ci loo xam ne moom c'est du yëfu tey mun nga def benn bon dem fayee ko ci banque bi fayee ko ci banque be fayee ko ci banque be mais loolu lan la loolu détournement de de de détournement de deniers publics la donc am na ci loo xam ne man d'accorduma ci woon te waxoon naa ko au début dama ciy revenir mooy l'assistanat le soutien indirect fan dañu toll ci Sénégal boo xam ne waratuñu di jënd ay ceeb dem di ko jox nit ñi temps Covid bi man waxoon naa ko mais mënuloo jënd ceeb ngay dem di ko jox koo xam ne mais soxla ceeb diw diwlin la soxla mais nit ñi tollootuñ foofu aussi parce que nit ñi tamit seen sutura dafa am solo waruñ jël loolu mais dañu xool a xool ñu classer citoyens yi par ordre ci loolu ci seen koom-koom lañ leen di natte doonul da nga doon baykat que da nga pauvre hein doonul que da nga doon citadin que da nga pauvre wala da nga donc ci li ngay am par année moom la ñuy xool calculer ko bu ñu ko calculer ñu xam fan lañu lay situer léegi fi ñu lay situer ci foofu ci lañ lay dimbalee mais pour ñu dimbale la il faut que liggéey boo xam ne au préalable dañ ko war a def il faut que ñu xam nit ki ñaata lay soxla pour dund par weer est-ce que xam nga ko. Sénégal mhm. nit normal nan la ñaata la soxla pour dund normalement ci Sénégal moi j'ai posé la question à plusieurs Sénégalais xamuñ ko ñoo xam ne samay xarit yoo xam ne ay cadre lañ fonction publique xamuñ ko par exemple boo demee gouvernement du Canada boo duggee di nga xam nit ñaata lay soxla pour dund par weer ñaata lay soxla bu dee ñaari nit la ñetti nit la mhm. ñaata la ñuy soxla pour dund pour année mhm. léegi bu doonee ne yow sa famille yow ak sa ñaari doom vous avez besoin de cent cinquante mille pour vivre par mois le mois léegi ñu xool ne yow weer bii nii walla at mii buñ cumuler lool amoo li nga soxla mais loolu la ñuy mën natte il faut nga natt pour xool nit ki nan koy dimbale léegi ñu xool yow ci li ñuy joxe lan lañ lay yokkal pour nga atteindre objectif boobu certains m'ont dit même ci bourse sociale bi peut-être que Euh, modèle bi war nañ ko xoolaat aussi certains m'ont dit bu ñu ko joxee borom kër gi du ko def ci kii bi du ko du ko def ci njaboot gi mhm. mais loolu yëpp consensus interne lay doon dans la famille mhm. ñu régler ko c'est vrai que mënuñ régler famille bi ni ñuy dundee mhm. mais ñoom dafay am consensus boo xam ne les deux signataires ñu jox leen ko ñu xam ne famille bi la dugg je pense que c'est c'est ça qu'il faut fair donc tànk que réglé yooyu noonu di leeral texte yu ñu teg ñu leeral ko te amul man maay doomu diw walla doomu diw pour que ma mun a génnee lii boo defee ay bon nga xam ne lii nga soxla mais comité boobu noonu de pilotage bi validé ko léegi bu ñu ko validé mu dem comité opérationnel les comités opérationnels ñoom ñu évaluer vraiment li nga xam ne yow loolu nga soxla mais ça peut se en une journée bu ñu amoon benn système bu baax par exemple système SAP sax Euh, mun na loolu même bu dul lool benn système boo xam ne transmission de l'information dina gaaw mun nañ en une journée booy yëpp ñu évacuer ko avant minuit chaque minuit ñu def recette situation général bi xam ko c'est-à-dire ñu def combinaison mm-hmm. du besoin d'une manière globale mm-hmm. ñu xam ko évaluer ko mm-hmm. mu fexe mu méngoo comité de contrôle de qualité bi fexe mu méngoo ak li nga xam ne moom lañ teg comité de finance bi def euh, seen circuit de dépense seen processus de dépense donc ñu se xaalis boobu noonu je pense que yooyu c'est des étapes yoo xam ne bu ñu ko tegoon lu bëri dinañ ko mën a éviter mais man dama yaakaar ne ñun du ñuy jàngee lu bëri ci li nga xam ne mooy passé parce que yu mel noonu peut-être que scandale yi kiiwul feeñul woon nu comme nii mais yu mel noonu daan na fi am daan na fi am vraiment mais léegi fi ñu toll am nañ des ressources yoo xam ne ak outils yoo xam ne permettre des ressources humaines ci lay njëkkee de qualité yoo xam ne bu ñu leen impliqué woon vraiment wala ñu déglu leen lu bëri dina mun a nekk parce que dañu waxoon ne ñu ngi en guerre nag mais bu ñu nekkee en guerre da ngay xool soldaaru réew mi yëpp nan la ñuy jógee ensemble pour que ñu régler guerre boobu noonu mais bu ñu xoolee aussi ci biir ñi ngay naan ressources semaine boobu gis nañ ne am na recommandations yi nga xam ne of euh, kii jo rapport des cours des comptes joxe na ko par exemple yenn poursuites yi nga xam ne war na am mais dañu xam ne benn fait boo xam ne remarqué nañ ko may personnes yi nga xam ne cité nañ leen ci au lieu ñu jéem a xool lu ñuy setalee seen der dañuy xool lu ñu si mun naa ne nu ñuy déshabiller suñu institution yi est-ce que pose benn problème rapport yenn yenn leader politique yi ak par rapport suñu institution yi fekkee ne ku ñu tuumal rek nga jéem a xool noo ko noo ko noo ko déshabillé ba xool noo noo ko tilimale. waaw waaw effectivement xam nga euh, li may wax suñu réew mi dañu dañu toll foo xam ne dafa doy waar parce que c'est un peu le sauve qui même au sommet de l'État hein c'est le sauve qui peut euh, xam nga d'une manière très procédu procédurale mënoon nañ parce que rapport bi xam nga ñetti étape la. da ngay def rapport provisoire joxe ko comme audit léegi kooku def ay commentaire am ay justification léegi yow nga xool ci justification yooyu noonu ki joxe wuy ki joxewul mais di nga xool li nga xam ne moo ci yanu maanaa conformément au texte ak li nga xam ne yanuwu ci maanaa donc quand quelqu'un te dit doo xam ne yanuwul maanaa par rapport ak li nga xam ne moom la ñu teg mhm. mais effectivement euh, rapport euh, loolu doo doo ci tenir compte donc voilà recommandation am na te je pense il faut le saluer parce que euh, Cour des comptes ñi fa nekk def nañ liggéey bu mucc ayib mais mois je le dis toujours audit c'est une affaire boo xam ne c'est pas quelque chose qui doit se faire temporairement c'est une activité permanente de la gestion des affaires publiques même des affaires privées parce que audit moo lay permettre nga xam fan nga jógee ak fan nga toll audit moo lay permettre nga xam sa poche bi ñaata nga ci defoon mhm. fan nga dugal lii ak lan moo ci des mhm. donc ce qui veut dire que pour man c'est vraiment pas un événement mhm. euh, alors am na ci yeneen réew yu nekk par exemple euh, euh, boo demee ci yeneen réew yi par exemple le rapport du du contrôleur général du vérificateur général par exemple dafay génn chaque année mais bu génnee recommandation yi ci nekk c'est un peu comme ça donc recommandation yooyu je pense que li ci am solo mooy ñooñu noonu toog wax sénégalais yi lan moo xew réellement parce que comme li ma wax am na ci loo xam ne moom man c'est très difficile ñu justifier ko c'est très difficile mooy chèque boo xam ne récupérer nañ ko fii récupérer nañ ko fee récupérer nañ ko fee loolu moom ay surcharge ay marché boo xam ne dañ koy jox nit par exemple ay jusqu'à je pense 17 milliards ou 15 milliards donc vraiment te ñeneen nekk bi xam nga loolu mooy euh, xaw ma crime économique organisé ou quelque chose lañ ko mën a wax ñii fournir bëri nañ mm-hmm. ñi am activité économique bëri nañ mënoon mm-hmm. nañ ci jaaree ñu dimbaleen yu bëri xam nga dafa am benn euh, industrie bon bëgguma toujours di wax euh, Canada mais fañ na falaa xam te seen modèle laa xam industrie Canada souvent dañuy jël certaines entreprises ñu bind leen ne leen opportunité mu ngi nii mais fii malheureusement on la fait pas moom laay wax politisation à outrance boobu il faut que nga jege diw pour que nga mun a am lii te am na ci loo xam ne waroon nañ ko mën a dépasser vraiment waroon nañ ko mën a dépasser ni ñuy joxe marché yi kan lañ koy jox et leeral ko chaque fois bu ñu demee mu nekk ci ci ci ci site yi information bi ñu partagé ko ñi nga xam ne war nañ ci mën a contester mais fii souvent on est tellement politique que même benn marché boo ko contester finalement dafay tardé rek mais du am dara à la limite tu crées une animosité avec la personne donc pour le rapport j'espère que dina am njeexital te ñu jàngee ci pour que des contrôles internes s'exercent à tous les niveaux que ça soit dans les directions que ça soit dans les ministères que ça soit au sommet de l'État pour que ces gens-là aient un mécanisme très fonctionnel, un mécanisme très bien huilé pour que les genre regardent à tout moment lan mooy alalu askan wi ak fan lañ koy dugal ak ku ci nekk lan nga war a am ñu def ko donc loolu mooy li gën a am importance ñu jël diw wala diw ñu tëj ko te yu ci bëri ñu dépassé ko nit ñi buñ leen bu ñu leen miinal jënd dara jox leen parce que très souvent c'est comme enrichir des personnes parce que ceeb bi dégg naa li nga xam ne loolu lañ ci wax ñi gañe marché bi mhm. surfacturation ñi naan prix bi prix 2013 la prix tel la mais prix boo xam ne moom la ñu homologué mais prix boobu noonu peut-être moom la ñu jël mhm. en tout cas yu loolu ay détails la mais waruñu woon sax nekk foofu nit ñi nañ leen jox ñu dem liñ bëgg a jënd ñu jëndal ko seen bopp donc loolu ñun autonomisation de la population ñun loolu la ñu gis nit ñi duñ ay xar yoo xam ne dañ leen di jël takk leen ne leen dem leen fii am lekkal lii am cest dire vraiment nit ñi dépassé nañ foofu monde bi dépassé nañ foofu et c'est comme non dirigeants là je pense que nit ñi dañ leen dépassé nit ñi seen boppam ñoom ñoo leen dépensé ñoom fi ñu foog ne fi ñu xalaat ne nit ñi foofu la ñu toll les gens ont loyalement dépassé ça et puis même xale yi dañu leen koy wan les jeunes ont dépassé nos dirigeants et que normalement c'est c'est c'est euh, euh ou malheureusement bu ñu góor góor góorgóorluwul ñu ajuster euh, dina dina ñaaw quoi. mais loolu lépp nga yaakaar ne lu ko waral est-ce que nekkul par exemple yenn scandale à répétition yi nga xam ne mu ngi am mais aussi par rapport ak. yenn comportement yi nga xam ne vice versa tout de temps en temps ñu ngi koy gis est que du foofu noonu problème politico éthique bi du posé wu foofu noonu par rapport ak yenn suñu yenn comportement yenn homme politique yi ñu yor. mais tout à fait c'est c'est le fondement de de tout éthique mooy fondement bi yépp ak comme j'ai dit clarifier les textes clarifier les rôles et les responsabilité xam nga bu ko classé bu ñu ko clarifier mm-hmm. amatul ambiguïté. yow tu es blanc ou noir quand tu noir fii mooy sa sa place quand tu blanc fii mooy sa place je pense que ça c'est très très important bu ñu gisee ni nag et ce qui est dangereux hein, ce qui est dangereux pour nos dirigeants bu ñu xoolee ci ñi fi jógee xoolal regarde le régime Diouf y avait des personnes intouchables ana ñu de régime Wade le régime Wade je peux pas prononcer de nom mais il des gens yoo xam ne ils se pensaient euh, ñoom ils pensaient qu'ils étaient de euh, des des des de demi-dieux ani ñu le régime Macky Sall on des gens yoo xam ne ils se ils ils sont plus puissants même que ministre des États-Unis capable de tout faire donc classification boobu noonu moo bon ñi nga xam ne boo bokkee ci nguur gi loolu neex nga def wala boo jegee njiitu réew mi lu la neex nga def boo nekkee fële alors nga xoolaat bu baax li nga xam ne loolu ngay def loolu baaxul c'est que égalité bi ma la doon wax léegi ak équité lool c'est fondamental tant que demuñ ci égalité équité ku ci nekk xam ne fi ma toog alalu askan wi moo ma fi teg salaire bii laa war a am lii mooy sama liggéey lii laa war a def am na ci loo xam ne ay conflit d'intérêt réel waxuma sax réel conflit d'intérêt vraiment muy am te du am benn njeexital donc bu amee nit ñi dañuy xalaat ne tamit ñoom ni mu amoon daaw noonu lay amee ren te lool baaxul te loolu dafay créer benn frustration populaire boo xam ne les gens vont se dire que mais nañu xaar rek ba élection ñëw donc bu élection ñëwee ñu sanctionné mais avant élection am na ci ñoo xam ne dañuy def ay comportement yoo xam ne tu vois que ñii dañuy venger wu ci benn situation donc vraiment loolu lu ñu war a seetaat la ci nu mu gën a gaawee nag nu mu gën a gaawee ñu seetaat ko parce que buñ ko deful comme je le dis buñ ko deful am na ci loo xam ne dañuy yaakaar ne du fi yegsi ñu nekk dans l'autosatisfaction on est au Sénégal euh, kii mu ngi fi sëriñ bi fii la juddoo sëriñ bi fii la juddoo mais écoute fii sallallahu taala alayhi juddoo mais yu yu yu doy waar daf fay am waaw donc li nga xam ne moo am solo mooy nan la ñuy liggéeyee liggéey bu rafet nan la ñuy leeralee li ñëpp bokk nan la ñuy wanee ki nga xam ne ku ci nekk luy sa wàll mais fii moom ñiy gën di riche ñooy gën di riche rek am na ñoo xam ne presque ba ñu juddoo ba léegi état moo leen yor cest à oto mooy fa état mooy fay seen oto mooy fay seen courant mooy fay seen essence mooy fay même seen kër c'est-à-dire bi ñu juddoo mun nañu wax ne bi ñu amee vingt ans ba léegi dugg ci mouvance état état mooy def seen lépp te loolu cest à dafa ñaaw dafa ñaaw alors que état boobu noonu yow oto bi mu la jox waroon na ko yóbbu def ko benn ambulance yóbbu ko mi donc dafa am ay critères de développement yoo xam ne dañ ko war a teg. muy dëkk mhm. di commune di région ba ci état ku ci nekk lan nga war a am boo tolloo fii lii nga war a am donc ce qui veut dire que loolu buñ ko defee mhm. buñ ko defee dina waral yow soxlawoo sax nga xam kenn mais boo duggee rek mhm. boo dugalee sa critère rek war ngaa xam ne lii dama ko war a am te loolu dafay ñëw malheureusement yegguñu foofu donc ce qui veut dire tant que yegguñ ci critères yooyu noonu bu ñu sanctionné diw dañuy wax ne dañ ko bëgg a liquider c'est léegi on trouve une justification à tout mm. une justification j'ai entendu sax que ñu ni non bataille la autour du président de la république parce que ñi farak euh, jabaru njiitu réew mi xaw ma ñi farak rakku njiitu réew mi ñoom bëgg a liquider jabaru njiitu réew mi donc c'est c'est c'est vraiment des choses yoo xam ne yëpp doo doo doo comprendre te état waroon nañ dépasser fii te loolu lu yomb la c'est-à-dire soxlawul ñii di wax naan c'est des loolu loolu aussi man dama ci kii toujours ñii wax naan c'est des hommes d'état c'est des hommes mais un nom d'état c'est pas quelqu'un qui s'est signé seulement hein un homme d'état c'est quelqu'un qui comprend le circuit de l'élaboration de des politiques publiques le circuit du financement public le circuit de l'exécution d'un budget le circuit de de l'exécution opérationnelle le circuit du contrôle et le circuit du de du continuel improvement. loolu mooy homme d'état. si wax nañ ko dépasser mais gis nañ ne bu lu ñu war a dépasser am benn question boo xam ne ba léegi ça reste flou si si bopp sénégalais yi keroog euh, am na si ay bés yu weesu ni nguur gi njiitu réew bi def na def na déclaration am lii na mais da koo raay mun nañ ne si sax waxu ci muy question troisième mandat bi. waaw waaw loolu aussi. ci lu ñu waroon dépasser la effectivement euh, parce que Sénégal fi ñu tollu loolu war nañ ko dépasser completement parce que tamit je pense que textes yi ñoom ñoo waxoon ne leer na ñoom bu ñëwaatee ne textes yi leerut xëy na am na loo xam ne moom lañ bëgg loolu mooy benn ñaar président dafa am lu mu waxoon te loolu dafa am solo parce que sa doom. li nga koy jàngal mooy li ngay wax ak li ngay jëfee moom moo wax fu nekk ne moom verrouillé na ko parce que aussi dañ fi def référendum hein on a on a investi milliards pour référendum alors que waxoon nañ ne limite nombre de mandats yi c'était clair ci constitution bi passé jaaralewuñ ko assemblée moom nee na dafa bëgg mu leer ñu dem sénégalais yi voté ko ñu vote ko moom mu leeral ko porte parole leeral ko responsable groupe bam yëpp leeral ko premier ministre leeral ko yëpp vraiment waratuñ dem ba toll fii ñu naan ay bu jotee dinaa décider walla ku ci wax xam nga vraiment nañ cohérent parce que loolu mooy jàngal nouvelle génération bi mooy li nga doon wax noonu duñ la gëmati cest à dootuñ la gëmati te pour man président war na jàng lu bëri bëri bëri ci njeexatul Ablaye Wade ak njeexatul ñeneen ak ñeneen ana Alpha Condé ana Yaya Jammeh ana Jacob Zuma xam nga dafa am loo xam ne dafa am importance président yi nekkoon ci Afrique yëpp ñu bëri jóge nañ fi ani Obasanjo mais président yi fi nekkoon xale bi juddut xale yi am at tey sax boo ne leen Nelson Mandela ça résonne dans leur tête aux États-Unis on parle de Nelson Mandela au Canada on théorise Nelson Mandela mais ces anciens présidents qui étaient là mais kenn du leen tudd parce que dafa am loo xam ne boo ko defee da ngay yàq lu bëri ci yow ci yow ci sa génération ci ñi lay postérité bi aussi je pense que créer fi benn contexte boo xam ne comme bi fi amoon bu njëkk la ñii di mbëkkante même bu amul dee retard économique bi muy créer sax jaru ko man su ma doon président Macky Sall du ko sax xalaat je vais dire clairement réew mi ñu ñu xam nga fii euh, Sénégal dañu dañu commencé boo ñu wax non kii c'est un très grand politicien un très grand politicien n'existe nulle part quand tu es au pouvoir oui mais boo fi jógee tu plus un grand très grand politicien qu'est-ce qu'on disait de Charles de Charles de Gaulle général de Gaulle lan lañ doon wax c'était un grand politicien mais kenn da ko déggati kenn lañ doon wax ci Ablaye Wade Njomboor c'était un grand politicien mais est-ce que sa sortie démontrait na c'était un grand politicien s'il était sorti d'autrement ci beneen anam bu gën a rafet ne leen Sénégal maa fi nekkoon xeex naa 30 ans ngeen jox ma pouvoir def naa ñaari mandat maa ngi dem ñu organiser élection yu transparent kii ñëw toog foofa la ñuy wax c'est par là qu'on dira que c'est un grand président c'est un grand politicien c'est quelqu'un de très responsable qui aime ce pays mais je pense que nos dirigeants là n'aiment pas parce que ci nit ñuy doxalee bu ñu gisee certains ñu ànd ak moom ñoo xam ne ñoo doon wax démb ñoo doon wax ne non mun wala nga gis kilifa gu mag comme Moustapha nekk ànd ak moom ñoom président yàlla da ko dimbali président yàlla da ko dimbali alors que tu dois dire au président que non lii bul ko jéem nga gis ñeneen ñoo xam ne ay jeunes yoo xam ne ñoo doon wax ni président dafa yaakaar ne moo gën a muus ñëpp président dafa xalaatu ko ren ñu ëlbati seen vest di wax certains wax vraiment dafa am loo xam ne vertu ak principe Euh, dafa aw am loo xam ne doomu aadama sa wëy dafa war a tax yenn yi warul loo ko sa xalaat te on sait jamais on sait jamais parce que am na contexte boo xam ne bu ko président créé ba n'importe qui arrive au pouvoir ce sera très dangereux pour ce pays et ce sera très regrettable pour tout le monde alors que loolu yëpp nag li koy waral très souvent mooy dañuy def yoo xam ne duñu wóolu keneen parce que bu feeñee rek mooy seen àdduna yàqu na walla ñoom sax seenu dund dootul amati sens te loolu moo moo tax baaxul moo tax nit ku nekk boo yoree mbir xoolal ëllëg xool démb xool yàlla xool ñi la ko jox xool citoyen yi c'est très très important gis nga boo ko defee dafay tax yu bëri du la bett mais nag peut-être que affaire bi da ko bett euh, comme li ñuy wax cinq ans dafa gaaw peut-être que dem na ba benn instant donc mais rien ne justifie ce revirement là rien rien au monde ne le justifie le Sénégal t'a tout donné boo xoolee président Macky Sall fu mu juddoo fi mu jaar ak bi muy nekk ci université bii ba dem ba yàlla cëral ko il n'était pas prédestiné à être président de la république bu doonoon ci am am la ci juddoo ci famille bu am xaalis walla famille bu nekk ci administration donc boo demee ba loolu yàlla may la ko am na ci loo xam ne da ngay doyal yàlla nga ne ko maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm réew mi de moomu ma ko du ma borom réew mi danga maa tegoon may dir jiite réew mi naa ko joxaat ñi ma ko joxoon ñun citoyen ñuy borom réew mi ñu xool ku ñu doy ñu jox ko réew mi mu continuer mm-hmm. et je pense que ñun bu ñu joxoon réew mi li nga xam ne moom la ñuy njëkk a régler mooy loolu kenn dootu ko xalaatati ci mm-hmm. réew mi. Mm-hmm. l'autre fait bi nga xam ne temps yi aussi démb rek mu nekk suñu confrère bi nga xam ne muy pap Alé yenn avocat mi génn di wax ne bakkanam mu ngi ci entre dund ak dee aussi am na ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi ñoom ñëpp ñu nga xam ne mën leen tuddee ay arrestation arbitraire yéen si seen parti bi ñoom jàngat ngeen am ci yenn yenn arrestation yooyu noonu. waaw man am na ci loo xam ne ñun d'accorduñ ci parce que am na ci délit yoo xam ne vraiment soxlawul ñu lay denc ci kaso gi comme Pape Alé Pape ku nekk xam na liggéey bi nga xam ne def na ko ci réew mi ci communication nit ku nekk nag am nga jikko mais du loo xam ne dañ ko ci war a topp parce que Pape Alé mu nekk ci biir wala mu nekk ci biti mais du tere Macky Sall mu def dara du ko teree liggéey Pape Alé bu ñàkkoon bakkanam léegi lan lay def ci ñoom ñi nga xam ne ñeneen yi ñoom lañ denc euh, vraiment dafa doon yoo xam ne euh, waroon nañ leen permettre ñu am seen liberté d'expression la te amul ma dara loo xam ne man gis naa ko Euh, muy euh, kii conséquence bu mu def ci fonctionnement gouvernement bi que mu doon seen wax que mu doon seen jëf ñoo xam ne dañ doon manifester mais liberté de manifestation constitution bi moo ko consacré nañ leen bàyyi ñu manifester koo xam ne benn post la def Facebook mais au lieu ñuy régler ay menaces de trouble à l'ordre public mais nañ def des stratégies qui vont contrer les troubles à l'ordre public mais ñu ngi wax bu doonee ne ci li ma ci xam ci lu néew ñu ne transmission de rapport classé top secret mais attention ñoom transmission boobu noonu war nañ ko xoolaat parce que transmission bi ça pa ne pas être quelqu'un qui lui a ça directement parce que suñu suñu sécurité informatique Sénégal c'est très poreuse moi je vous le dis parce que am na ci ñoo xam ne approché naa leen ñoo xam ne ministère yoo xam ne walla kii mais seen serveurs yi pour nekk nit du Dubaï ñi jàng informatique xam nañ li may xam xam nañ li may wax percer seen pare-feu yi jël information bi génne ko c'est très très facile il pas une bonne sécurité d'information y a pas une bonne transmission d'information au gouvernement du Sénégal xam nga boo demee information gouvernementale c'est classé en trois niveaux secret top secret ak information euh, fiable là qu'on peut parce que si l'information transmise n'a aucune incidence sur euh, la sécurité de la personne wala les informations personnelles de la personne donc loolu amul problème donc loolu yëpp mun na doon ci information gouvernementale c'est vrai que beneen domaine la nag bu gën a xóot mais si l'information peut en cas de divulgation créer par exemple benn situation extraordinaire comme ils l'ont dit tantôt dina saper la sécurité du corps mais dafa am trans information boobu nan lañ koy transféré nan lañ koy partagé ak kan moo ko war a gérer koo xam ne dafa am code de sécurité donc loolu code ay code de sécurité mooy peut-être ñoom li ñuy wax ne enquête de moralité ou quelque chose mais par exemple bu doonee yeneen gouvernement yi dafa am code de sécurité boo xam ne boo ko amee ci ngay approché par exemple ci ngay liggéey ci niveau ministère wala ci ngay liggéey ci niveau présidence parce que yooyu yëpp dafa am loo xam ne ay préalable yu ñu war a def mooy comme li ma doon wax rek dafa am yoo xam ne dañ ko war a tëgg mu doon ci suñu organisation interne fonctionnement du gouvernement pour que lu bëri ñu mun ko ma facilité mais transmission d'information boobu noonu nit bu amee rapport euh, tradu euh, transmettre rapport boobu teg textuellement war nañu mun a interroger waat lu bëri au lieu que ñuy identifier ay bouc hémisphère parce que Sénégal souvent ñu xalaat ne diw def na alors que en réalité kooku deful dara te loolu ci ni ñuy dencee suñu information la te léegi dañu toll ci monde technologique globalisé boo xam ne mhm. les gens font mais bu ñu demee bay pirater mhm. système de santé bu États-Unis bu ñu demee bay pirater système revenu Canada nga xam ne bon man liggéey naa euh, gouvernement ministère des service partagés fi sécurité informatique gouvernement Canada nekk liggéey naa fa donc xam naa ñaata la ñuy investir ci sécurité nan la ñuy def pour collaborer pour que ñu maîtriser information partager ko ñu ko war a jot jot ko donc ci loolu la ñu war a liggéey au lieu que ñuy identifier ay kii di leen tëj ci yoo xam ne vraiment mënoon na ñàkk mais uh-huh. Pape ñu jox ko liberté mu dem këram wàññiwu leen dara li ñu war a def nañ ko def moi c'est ce que je pense. Mhm. Et pour terminer gis nañ ne biento élection présidentielle yi mu ngi ñëw yéen seen parti ci opposition yi ngeen bokk gis nañ ne local yi passé demoon ngeen am na euh, sànq demoon ngeen ci li législatif yi demoo leen mais est-ce que ci présidentielle yi di ñëw yéen yow aussi sa bopp yow ci am pare nga pour nekk candidat. waaw loolu ñu ngi ci ñu ngi ci waxtaan effectivement parti bu bees lañu te ñëwuñu aussi pour amuser la galerie. ku ñu xam xam ne bu ñu ñëwee c'est pour faire une différence dans la vie des et on va faire incha allah avec qui c'est la question parce que ku nekk xam na ne kenn wala benn parti rek léegi mënatul indi coppite ci réew mi même bu dee benn parti sax liggéey bi nga xam ne moom la laaj benn parti munu ko fi ñu toll ñun dañu bëgg ñu ngi travailler sur les 3C clic consulte contact dañu bëgg massifié wu ba nga massifié wu ba nga xam ne ku kilike xam ñu ku consulter xam ñu ñu dem contact ak ñooñu donc ci ci volet boobu la ñu toll alors c'est vrai que contexte de 2024 la ñu toll ñu ngi waxtaan ak ñenn ñu ngi waxtaan ak ubbeeku nañ pour waxtaan ak ñu bëri fii ak ay fan yu néew walla ay weer yu néew dinañ dajewaat ñu def suñu congrès parti. mën nañ xam ndax opposition bi lay nekk wala. bu ñu pouvoir lay nekk. waaw non ñun opposition lañ. ñun nu voulons que les choses changent. si vouloir que les choses mooy opposition ñun opposition la ñu nekk. alors parce que li ñu gis mooy Sénégal ni nga xam ne noonu lañ koy diriger. dafa war a soppeeku. Sénégal xaalisu askan wi ni ñu koy utiliser dafa war a soppeeku. Sénégal ni nga xam ne noonu la ñuy gisee kilifa. bu njiit. perception boobu ça doit changer complètement pour que ñu xam ne le DG le ministre c'est comme toi et moi donc amul benn différence ñoom aussi ñu xam loolu wàcc seen bopp ressource yi leen di jox ñu wàññi ko def ko fi nga xam ne loolu lañ ko war a def ñu xool priorité yi fan la ñu dugal ko fa loolu ñun mooy li nga xam ne loolu la ñuy défendre te loolu mooy bonne gouvernance loolu mooy opérer les véritables changements loolu mooy restaurer la république loolu mooy ku nekk amaat confiance loolu mooy ku ci nekk li nga war a def nga def ko loolu mooy ñu transformer réew mi parce que réew mi tamit jot na ñu defaraat ko parce que buñ ko defaraat buñ ko defarul sur le plan de la sécurité comme je l'ai dit on a un problème de sécurité communautaire à militaire on a un désordre que tu peux pas imaginer Sénégal rek ngay gis réew moo xam ne benn camion day paan fii taxaw fi mu nekk fi toute la journée kenn du wax dara ñëw contourner ko wala nga gis kenn ñëw baas ci digg koñ bi kenn du ko régler ku ñëw contourner ko donc chaque essaie de tirer son épingle du jeu où est l'État dans tout ça donc on devait constituer des mécanismes yoo xam ne da ngay gis sur le plan du désordre du de de sur le plan de l'assainissement benn égout bëtt fenn mais di xelli ci koñ bi yëpp wala kenn débarquer benn gravat këpp ko ful c'est-à-dire c'est un pays où chacun fait ce qu'il veut dépendamment de son niveau ak sa grade donc loolu baaxul dafa am yoo xam ne dañ ko war a régler réew yi développé yëpp fii lañ jaar donc ñun loolu la ñuy théoriser te xam nañ ne bu ñu demee congrès suñu membre partie bi investir ma comme candidat je vais l'assumer pleinement et je vais aller à la conquête des voix des Sénégalais pour que ñu opérer les véritables changements qu'il le faut nous sommes capables de le faire et il est temps de le faire et nous si nous le faisons pas personne ne le fera à notre place et léegi fi may kiiwee nag mooy xale yi surtout mm-hmm. xale yi mm-hmm. nañu xoolaat seen bopp xool li xew ci yeneen réew yi xam ne sama doom bi nekk Canada mm-hmm. bu doonee capable na mu dugg ci internet mu xam kiy defar passeport mu dugg ci potin bi xam ne passeport ñetti fan lay durer mu remplir dem jox yaayam mu dem déposer ko mu am passeport sénégalais bi nekk fi mën na ko am parce que outils yi c'est disponible toujours jeunes yi dañu war a xam ne ñoom dañu war a xalaat bu baax ci li nga xam ne mooy seen avenir u ëllëg te xool nan lañ mun a impliqué woo pour que dëkk bi soppeeku parce que ñoom ñooy plus de 60 pour cent te mënatuñu nangu nag ay vieux de 70 ans di leen diriger di dogal pour ñoom xamuñ seen réalité xamuñ seen dund te xamuñ ban politique yu bees moo am ci monde bi loolu dafa doon lu am solo que mu doon ñun que mu doon keneen. ñoom nañu bàyyi seen xel ci àdduna bàyyi seen xel ci àdduna mun naa ci wax parce que damaa yor organisme boo xam ne muy JB Monde may dimbale xale yu bëri ñuy dem di jàng bitim réew au-delà de consultance bi nga xam ne moom lay def mais boo defee jàngat bi quatre-vingt pour cent des jeunes waxuma sax dee sénégalais sax laa war a wax parce que da ngay gis mag mu ñëw sama bureau ne ma man damaa bëgg a tukki ma wax mu ne ma réew mi amatuma ci yaakaar réew bu ñu demee ba toll foofu dafay doy waar effort bi ngeen di def pour tukki effort boobu noonu bu ngeen ko defee booloo ànd xool koo xam ne moo baax muy président parti conservateur ngeen ñëw yéen ñëpp allié jàppale ma ma defar dëkk bi ñun ñu defar dëkk bi parce que dëkk bi kenn mënu ko defar mais bu ngeen tukkee aussi da ngeen di tukki def ko man ku ci bëgg a tukki aussi boo demee vraiment nga wuti xam-xam boo mënee nga ñëw service sa réew parce que réew mi soxna la comme ñun ni ñu def voilà. ok merci. waaw fi ma fi ma bëgg a terminer rek au-delà de ndaw yi mooy gërëm leen sant leen par rapport ak liggéey bi nga rafet bi nga xam ne moom ngeen di def te ku ci nekk war a bay sa waar ci réew mi pour que réew mi soppee damay wax très souvent kër réew mi nax réew la defar bu ñu buggee mel ni yeneen réew yi comme Singapour comme Dubaï peut-être que ressources yi mun na différent mais ressources humaines de qualité mu fi donc nañu xoolaat na la ñuy doxalee suñu mbir nañu leeral ni mbir yi di doxee nañu leeral yoon yi ku nekk fan ngay jaar même ci tali bi sax da ngay gis désordre bi nga xam ne moo ci am da ngay ñëw rond ku ñëw rek day xandaalu au lieu de premier arrivé premier servi loolu mooy esprit de euh, individualisme bi nga xam ne moo ñu animé te loolu doonul loo xam ne moo baax ci réew mi nañu góorlu ñu ànd soppi réew mi nañu góorlu ku ci nekk ñu jox la sa cër nañu góorlu ku nekk li nga mën a liggéey ñu jox la ko pour que ñu am Sénégal beneen Sénégal Sénégal boo xam ne ku nekk dañ ci gis sa bopp parce que buñ ko deful ñeneen dañuy ñëw jël réew mi def ci lu leen neexee te loolu du ñu arrangé. merci beaucoup ok merci monsieur Thiam.